jëmm ju baax jii nu toogal di Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Saliou yàlla na fi yàgg Mbacké te wér liggéey bii muy liggéeyal waajuram wu tedd we di ko liggéeyal maamam Xaadimal Moustapha yàlla na ko yeggale noo ngi fii nag tey ci xabaan jàkkaarloo moom Mbakke ñaan mu yàgg lool te wér bu ngeen déggee sunu kàddu nag mu jëm si si moom mu toog ren ba déwén la lan lay wax liggéeyal sëñ Touba ak jumaa ji noppi na ñëw leen julli ko yaar yooyu rek la sëñ Cheikh moom sëñ Thiali wax liggéey bii nag di liggéeyu xel koom nga xam ne ku ci liggéey ci lu baax dootoo laggi ku ci feeñ ci lu baax sëriñ Saliou fat la te ku sëriñ Saliou fat doo fanaan biti moo tax tey nu toog toog nag ak jëwriñ ji di doom di soppe di xarit di taalibe kooku mooy kan mooy Cheikh Amar moom sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké borom ngot borom ndal borom xabaan borom njuul borom ndoka kooku dimbali Cheikh waaye dem nag bàyyi ko ak sëriñ Cheikh bu baax mi liggéey ba ko sëriñ Saliou joxoon mu wéel ko cheikh wooteeti na xarit yi soppe yi wëllëri yi am di jàmm yi ku wax asadu an laa ilaha illallah doomu aadama yëpp cheikh Amar woon na leen ci liggéey Serigne Cheikh Mbacké moom sëñ Saliou ca tooli xel koom ya ku yeex doo fa fekk lenn waaye bëgg leen a dimbali moo tax sëñ bi jox ko ndigal mu yëkkatiwaat kàddoom waaye Cheikh Amar woo ay bokkam woo ay xaritam néeg ndeyam ak darmanko yi di néeg baayam bàyyiwul kenn Cheikh lépp lu maam Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké kon woo na leen ci bis boobu ci ngóob moomu bu kenn manqué ñëw leen ànd ak mar Amar Cheikh ne ku mu lebaloon kaay fay si ko ci liggéeyal Serigne Cheikhum Serigne Saliou ne ku mu lebalul woon ñëwal lebal si ko ci liggéeyal Serigne Cheikhum Serigne Saliou ne dana dana ñaan ci barkeem fay la waaye bis bii képp la Cheikh am moom lay waajee moom lay wallee. noo ngi dellusiwaat ànd ak Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Saliou. mu waat ay kàddu yi sant yàlla boromam subhaanahu wa taala ci may gim ñu may ñu fekke waat jataay bii daaye di feddewaat ak njëbbalam ci sëriñ tubaa xaadim rasul di sant nag magam ji nga xam ne moom la fi yàlla teg te muy xalif général de murit di sëriñ tubaa seex sidiyal muxtaar di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te dolli ak wéram waaye di sant mbooleem njabootuk sëriñ tubaa gépp ci liggéey yi nga xam ne weesu na kook moom ten ànd koog moom àndeen wu rafet mu amaat cantaat yàlla nag bi fii liggéeyub Serigne Touba ba nga xam ne moom la daan liggéeyal Serigne Touba Cheikh Saliou ca daaray koom liggéey booba noppiwaat na. na mu ko daan waxee ne ndabul taraanga la loo xam ne Serigne Touba Cheikh Saliou mbake daf ko daan séddale bunti kër yi lislaam yëpp ndab loolu nag moo noppiwaat Serigne bi bëggul kenn des bëggul kenn manqué moo tax nee na mi ngi ànd ak mbooleem askanu maam maharam di ànd ak mbooleem kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah di woote waat boobu mu war a doon kan gaaw juróom-ñaari fan ci weeru tubaab. ku tëdd kii ñu toogal muy Serigne Cheikh muy léppam di ku tëdd ki ku tëdd kooku nag liggéeyal boroom rek la fi nekk woon moom mii it moom la fi nekk yàlla na yàlla guddul fanam te wéral ko te saal ko ci liggéey boobu sëriñ bi wax ni mi ngi ñaan képp koo xam ni saa borom mën na la ko te amoo lenn ngant. liggéey boobu muy liggéeyal ku tedd ka ca xel koom ak fu mel ni moom fépp fu fay dégg ñu di ko wax jàkkaarloog yow da xam ne ndigal la ngir nga man faa dem barkeelu ci liggéey boobee. ndax moom mii koy def lislaam la koy defal te buñ ne lislaam mooy Serigne Touba. Serigne Touba moom moo koy defal kenn ku nekk ci nun teg na bëtam ni mi ngi jàkkaarloog Serigne Touba waaye noonu buñ sëgg buñ sëgg woon seen ko du Serigne Touba it duñ rus duñ rusloo. kon ñi ngi woo mbooleem koo xam ne ab jullit nga te man faa ñëw ndax njariñ rek leen di doye amul benn bis amul lenn lu muy woote lu kaay leen ñu liggéeyal ku tedd ki ci barab yu tedd yi nga xam ne ñu tedd ña ko fa defoon kon ñi ngi ñaan mbooleem taalibe Sëriñ Tuubaa yi mbooleem jullit yi ku ko mën nga ñëw fa liggéey bu sell bi dongay bi yi daa liggéey sëriñ bi ñoo ko liggéeyaat ba liggéey ba sell mu àgg ci ak li mu amoon yéene ñëpp man cee barkeelu amoon yéene ñëpp man cee liggéey Serigne Touba ndax liggéey bi kat moom muumu ko Serigne Saliou moo ko sos bokkoon ci liggéey yi muy liggéeyal Serigne bi bi mu dikkee bi mu dikkee te wuutu fi Serigne Saliou mu yeesalaat ko yokkaat ko ba fañ ca yemoon mu yokkaat ci lu bëree bëri jubluwu ci lenn lu dul ndimbalu taalibe yi ak fuñ ko mën a liggéeyale loolu nag sëriñ mi ngi ci delluwaat kilifa yi mu ci doon wooy yëpp nga xam ay jëwriñ lañ ci kilifa yooyu ak jëwriñ yëpp sëñ baa ngi leen koy yeesalaat. sëriñ Moustapha Abdoulaye Karam ak ba ci sëriñ Cheikh Anta suñ leen tuddee rek tudd nañ jëwriñ yëpp ak ku daa ñëw ca tool bi ak koo daa ñëwee ci biir loolu Cheikh mi nga xam ne si ne moom la ci sëriñ bi jiital def ko ci jëwriñ ca ca ca ca liggéey ba moom it teew na nim mu daa teew ànd ak i bokkam ànd ak ñëpp kon dañuy ñaan fee ñu jëm nam lanu ci sëriñ bi daa may mu maya mu mayaat na ko ca loola mooy euh, liggéey bu sell te gaaw te tege ci yoon te nañ ko bëggee woon ñu amee ko ni ndax xam nañ ne nun loola sun mooy sun pajuk euh, ajo ajo sëriñ bi saa bu fajoo rek nun taalibe bi ajo aajo faju na kenn ko nag fa nga daloon daaw fa ngay fa ngay dalaat euh, ren yi yëfi amul benn sokkeeku xanaa nag am nag yokkute mooy fa wax daru sakoor moom yokkuwaat na ci ci tool yi foofa am na jëwri ñoo xam ne foofa la ñuy tàmbalee nit ñi fekk leen lépp loo xam ne Serigne Touba daana ko woote maam seexante Anta jiitu ca te bokk ca ñàcc man loolu la Serigne Saliou ñëw yeesal ko ci diggante moom ak Daaru Salaam loolee nag ca la ñuy sant bi nga xamee ne saa borom teg na la fi ngay sëriñ saaliw yow itam lépp loo xam ne yaa nga ca nga boole ca waa Daaru Salaam xam ne sax njaboot lañ jël kii nga xam ne nag mooy Serigne Cheikh Anta Mbacké def ko jëwriñ wooteloo ko wax ñu ne bu ñu ñëwee. nañu tàmbalee ci sëñ moor Gaawaan mi fi tooge jataayu maam Cheikh Anta ñaanal ko mu yàgg fi te wér te di te di àggale ci moom wooteb sëriñ Touba bii wooteb sëriñ sunu yaakaar ji di sëriñ Cheikh Saliou yàlla na ko fi yàlla yàggal buñ ci jógee itam nu woo sëriñ Abdul Xaadir Mbacke jili mi fi toogee jataayub Cheikh Mahamadul Mamoun Mbacke yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wér sëriñ Cheikh Anta nee na mi ngi woo njabootug maam Cheikh Anta Mbacke gépp rawatina waa kër Cheikh Mahamadul Mamoun bu ca jógee itam mi ngi woo mbooleem seexi maam Cheikh Anta Mbakke yëpp ak mbooleem seexi kër sëñ Modou Mamoun waaye rawatina kër sëñ Modou Rokhaya fu fi waaye mën a nekk Serigne Cheikh Anta mii jëwriñ ji ci Daaru Salaam mi ngi lay woo ci kàddu Daaru Salaam gépp itam kon kon sëriñ bi liggéey bii nga nu boole nañu ca sëriñ Saaliw daan boole sëñ Touba daan ci boole noonu maam Cheikh Anta yàlla na la ci yàlla fay te yàggal la fi te may la wér ci barki sëñ Touba. ñun ñëpp ku da ngay fay bor te sëñ Saaliw soo wéetee xam la la Serigne Saliou defal mboolem li ngay wëlbatikuwaat di ko jëfaat doonoo ca dara lépp Serigne Saliou moo la ko defal ca asaka jo fayagoo ko loolu nañ ko xam kenn doonu dara ci liggéey bi maa ngi soññu jullit ñëpp ndax du taalibe murid rek ñoo war di dem xelkoom jullit ñëpp kërug diina goo dem ci réew mi Serigne Saliou def na fa loo xam ne ñooñee war nañ ko fay ci njabootam gi fi nekk mbokk yi ñoo jot a dégg kàddu yooyu Serigne Saliou la faj aajo jullit di rek a taxoon di xëy moo tax Serigne Cheikh di woote liggéeyu Serigne Touba bi loolu moo tax itam Cheikh Amar nangoo foofu alalam jëpp ak jëmmam jëpp ak xaritam yëpp yamale ko ci liggéeyal Serigne Touba nit ku ne kala may rek ngay xoolee kala jox ay bëtam moom ngay xoole moom Serigne Saliou wooy léppam ginnaaw Serigne Saliou mu jox ko Serigne Cheikh mooy léppam Serigne bi dafa wax ne mi ngi yaasalaat ak cant ci taalibey Serigne Touba yëpp di yeesalaat ak cant ci bokkam yi mbokkal Serigne Touba yëpp di yeesalaat ak cant ci képp ku mbokkal l'islam ngay wax ashhadu an la ilaha illallah daaray Xelkom dafa yaatu ak yeneen daara yi daara ju nekk am na ku ca doon jëwriñ kenn ku ne la nga liggéey bu noppee dana la ber na la jaajëf ci biir daara jooje nag ci la seex mi bokk daa bokk ci biir dongay tarbiya am daara jum yore liggéey bii muy liggéey mooy aw sasam kero ba sëriñ Saaliwu demee la waxoon ne sasoo naa koom lépp luñ ciy defati nañ ma ko bàyyee defin woowa nag sëriñ bi nee na daa rafet ba àgg ci lool kon saa yuñ tolloo ci bokk yi daje ñu war koo woote suñ borom subhanahu wa taala nee na woon yonente bi wa amma bi nihmati rabbika fa hadis buñ la defalee tey xiiwal de ko sa wax kon ak cantam yàlla ci seex da koy seereel borom bi subhanahu wa taala waaye di ko seereel Serigne Saliou mi nga xam ne moo tax mu xam ko nee na nag Seex Amar Serigne bi nee na nangul na la ne mooy sa ndey nangul na la ne mooy sa baay nangu na moo dox sa diggante ak Serigne Saliou kon mi ngi seereel jullit yëpp ak cantam gum am ci yow tey ñaan suñu borom mu sàmm la sàmm sa njaboot ak mbooleem ku la xam lépp loo xam ne yéene nga ko yàlla nga ko yàlla mottali wasalaamaaleykum wa rahmatullah seex lépp lu ma am yow ne mi ngi lay sant moom itam delloowaat tey ànd ak boppam ak njabootam jëbbal la boppam seex ne tàmbaliwaat na tey ak njabootam boppam ay xaritam ay walareem ne jëbbalaat la tey boppam ne takkuwaat na ndiggam fas yéene laa liggéeyal tey ak ëllëg ndax xam na ni liggéeyal la tey ak ëllëg rek mooy tax a jéggi koo am oto te bëgg a dem dana la ca defal essence yóbbu la na mu la daa yóbboo numéro téléphone baa ngi ni le 77 la 260 63 63 wala 70 469 26 69 ku ci woote danga nga mbay ak Mbaye boo jokkoo ak Mbaye Amar Cheikh dana la yóbbu delloo si la Mbàkke nag noo ngi nii sa bi sañ naa maye meew waaye jàpp ci jur gi maye ki moom jur gee ko sañ yaay Serigne Saliou talal na la sunuy loxo ànd ak ak bokk yëpp ak sa doom yu tedd yi ak sa rakk yu tedd yi dëkk la sunuy loxo na aajo yëpp faju